sànq maa ngi lay tooñ di wax ne pël rek mooy tudd maamu mais ndekete am na saraxo lay yu maamu aussi <laughs> donc mhm. andaga maxaña waaw <laughs> bonjour bonjour <laughs> tu es, tu la vedette de mon salon que j'ai un, garçon saay boo ñëwee dafay dafay bëgg a xeex ak man parce que dama lay supporter moom du la supporter d'accord bonjour euh, euh, Fatima mhm. et eh, Mela ni nga may ma nuyu waa Palmarin. waaw yow rek yaa tax ma jóge Palmarin. waaw <laughs> waaw parce que foofu laa dëkk léegi. am na lu ma fay def du ma ko waxtaanee tey. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais su may jóge fii damay dellu Palmarin donc gars yi préparé maa ngi ñëwaat. incha allah euh, Mélanie bi nga indi. c'est c'est intéressant. et et au passage je je je salue suma suma doyen honorable Sané. bi nga xam ne moo ñu moo ñu introduire mhm. c'est important parce que dafa dafa laal ay ay secteurs yu bari ci suñu économie te dañ ko xeeb mhm. dañ ko xeeb parce que ñu ngi koy gis noonu ñu ngi koy ñu ngi ci jànkantoo ñu ngi gis ndox yi et consort mais xamuñu exactement lépp lu muy lu muy def donc euh, nga tuddee ko tey bëgg ko dugal ci cadre de vie. Mhm. je pense que c'est légitime et suñ ci duggee ba ci kanam dinañ xam exactement lan moo tax. Euh, d'accord monsieur Faye te balaa ñu ci gën a dugg sax euh, dañuy laaj waa régie rek élément bi nga xamante ne day ñëw en support comme ça ñu gën a mën a waxtaanee mi mi ñu seetaan ko ñëwaat. parce que dafa mel ni ay nit dunduñu fii. HLM SICAP jaay la kër kër yooyu assainir ñu ko amul dara lu baax lu fi nekk kër yi boo duggee ci kër yi ñeenti kër yi wër ndox mi fii ci ci biir salon yi nit ñi sax da nga fekk ndox ndoxu douche yi mu mënoon noy dem Europe liggéey ba suñu ñàkk bi jeex jënd fii suñuy kër ñu bëgg dëkkee lii ñëpp doxu nañu nga jël auto vidange fay ko trente mille francs mu ñëw vidéel la sa kër léegi auto bi départ mu feesaat léegi nañu defaral loo xam ne au moins sax kenn du fi tuur ndox gisuñu ñu war a gis ñun yi ñooy sonn kon nag ñooy ñaxtu. xale yi mbaaw dañoo am yar am teggin. mënoon nanoo jël suñuy pën a teg ko fii. taal suñuy kër ndax oto yi dañ fiy romb. di dévier ndax lan am na yoon yu bëri yoo xamante ni biir mbaaw dañoo tëj seen circulation. mais toog jàpp seen njàmbur yaakaar ne au moins nañ leen secourir kenn ñëwul kenn deful dara kooku c'est pas normal. sonn nañ dee nañ tàyyi nañ lii lañ fi bëgg mu jóge fi li ñuy ñaan mooy nag bu fekkee ne moom mi ñuy dégg na ñëw defar ko fi. dafa am ay dëkkandoo yi fi nekk yàlla may leen te ñu ngi di seetaan population bi mu leen dimbale. c'est pas normal loo yaakaar ci état bi da ngay yaakaar am loo yaakaar xanaa maire bi rek doy na état. dafa mel ni suñu papa boobu noonu la na li nga xam ne moo di un cri de cœur mu nekkoon benn vox pop boo xam ne Mélanie defoon na ko fële na la ca mbaaw Mélanie. <laughs> Euh, Fatima <laughs> man de vox bi sax kii moom ma ci jàppale Théodore Semedo di ko remercier de passage mbir mi nag mu ngi noonu nekk na loo xamante ne doy na waar trop déversement eaux usées yi ñu koy jànkonteel surtout am na yenn gox yoo xam ne biir Dakar dañ ko fay ñoom dañ ko fay gën di dund sax boo demee Médina wala nga dem fële des Parcelles ak Sicap Mbao ñoom ñoo doon ñaxtu noonu noonu dañuy jékki saay rek euh, li lee di euh, ndox euh, ndox yi nga xamante ne ndoxu foos bi moom mooy ball daal di leen fekk si loolu nag mu nekk li nga xamante ne euh, day jur lu bëree bëri bëri côté infrastructure bi tamit buñ ci demee ndox bi au fur et à mesure nu muy gën di balee day dem ba day yàq tali yi loolu tamit indi leneen li nga xamante ne da koy jur daal ci ay conséquences mu nekk mbir moo xamante ne ñu koy dund ñu ngi koy nakarlu métti na leen ba fu métti yem ñoom sax dem nañ balancer benn kii de ndax ñoom nee nañ li leen di état daleen di seetaan ndax euh, li leen di état bi di seetaan ndax euh, ndax bu bëggoon rek dina gën a farlu ci mm-hmm. assainissement bi leen dafa toog seetaan leen euh, monsieur fay nag euh, balaa euh, li may sama laaj bu njëkk mooy ak li nga xamante ne jot na fee am dañ koy gis te jot nañ ko seetaan léegi mooy maanaam élément bi jot a jàll léegi est-ce que am na benn stratégie d'ensemble bi nga xamante ne teg teg maanaam teg ngeen ko ngir rek mën a hmm, solutionner situation bii nii. ma man nag Mélanie li ma li ma gis ci reportage bi mooy. Euh, bu ngeen ma ko nangulee mooy c'est la partie visible de l'iceberg mooy euh, moom loolu rek lañ gis et c'est très important mais c'est la fin d'un processus d'un écosystème boo xam ne dafa dafa difficile a euh, saytu xam naa wax nga ndax am naa stratégie wala am ngeen stratégie man liggéeyalu ma gouvernement waaw <laughs> bokkuma ci ci ci ñooñu suma suma suma ma wàll ci lii mhm. mooy damay saytu jumtuwaay yi nga xam ne bépp gouvernement def na ko pour adresser benn secteur benn politique. Mm-hmm. ci biir loolu ni ma koy jëlee mooy damay xool lan mooy cadre opérationnel bi lan mooy loi yi ko euh, li ko tënk ak lan mooy stratégie bi nga xam ne opérationnel bi nga xam ne def nañ ko mm-hmm. pour mun a am résultat yu baax. Mm-hmm. bu ñu xoolee lii problème mu assainissement la. problème mu assainissement dafa dafa bari ay buntu. dafa am d'abord bunt bi nga xam ne. moom moom la ñuy gis moom la ñu xam mooy mooy rigole yi mooy defar euh, euh, un système d'écoulement des eaux et consorts mais am na beneen yeneen yeneen euh, secteur yoo xam ne dañ daf leen a concerné par exemple tey bi ñuy defar bi ñuy defar égout yooyu population bi ñu ko calibré tey boo xoolee multiplier na dix fois cest à li ñuy def moom moo warul benn kër cent cinquante mètres carrés nga xam ne benn kër moo ci nekk nga calculer ko un ménage de sept personnes nga dem def ci benn étage benn benn immeuble dix étages nga multiplier nombre de nit yi waroon a mm-hmm. nekk ci immeuble boobu muy sept fois dix muy soixante dix personnes personnes alors que yow bi ngay calibrer sa égout da ko calibrer pour sept personnes lan moo mun a am lan mooy am waaw day sotteeku rek su boobaa il faut mu <laughs> mhm. problème yëpp foofu la foofu la jóge nga xool jëlal quartier yi nga xam ne moom lañ doon vraiment ñëpp foofu lañu bëggoon dëkk les SICAP et consorts hmm. naka la SICAP yi mel léegi fépp ay tuuru ah nga ñëw nag ci yi ñuy wax ne c'est des habitations modernes cité moderne mun naa la jox benn exemple fii soriwul hmm. muy scat urbain hmm. biñ koy defar tout le monde était content ñëpp di jënd kër foofu ndeketee la ñu def ci suuf dara baaxu ci donc qu'est-ce qui va se passer dafay am ay débordement débordement yooyu yëpp ñëw ci mbedd bi wax nga ko li mu yàq mooy plus muy toog ci mbedd bi plus auto yi di jàll mhm. plus tali bi di yàqu nga am beneen problème foofu donc fan mooy lan mooy dugg si foofu mooy euh, le service de transport est-ce que transport dina toppatoo affaire u ñoom ñoo xam mais li xew ba xew li am ba am mooy Sénégal assainissement ki koy toppatoo ci fi ñu nekk nii c'est le ministère de l'eau et de l'assainissement gis nga ko dañuy wax ministère de l'eau et de l'assainissement parce que am na lu ñu ci bëgg mhm. ci biir loolu am na ñaari ñaari ñaari euh, service opérationnel par exemple la direction de l'environnement mhm. euh, la direction de l'assainissement mhm. et l'office national euh, de l'assainissement du Sénégal ñoom ñoo war a toppatoo loolu mais ñun li ñu concerné tey mooy li nga wax c'est c'est les les habitations urbaines et périurbaines d'accord gis nañ reportage bi. vraiment lii c'est désolant. mais yemul ci assainissement rek parce que aussi le retour des pluies. dafa indi beneen jànkantoo boo xam ne. inondation yi dafay ñëw dugg ci te mm-hmm. pourtant kiy toppatoo inondation yi mun na bañ mun na bañ a bokk ak kiy toppatoo assainissement bi donc ñun suñu rôle mooy leen ñëw xool Sénégal lan la am jumtuwaay ci ay kayit ci ay ni muy defee ñu mhm. xool euh, jéem ko méngaloo ak yeneen dëkk mhm. yeneen dëkk yoo xam ne dañu tane Sénégal mbala yeneen dëkk yoo xam ne Sénégal leen tane ñu wax leen ne mhm. yéen li ngeen di def nii fii la mun a yem léegi pour ngeen euh, pour ngeen gën a sori il faut ngeen def lale te loolu ñoom nangu nañ ko parce que bu ngeen fàttale ko amoon na fii euh, mbootaayu réew yi dañuy tënk ay dara dañuy wax voilà objectif du millénaire du développement OMD fii ba 2015 war nañu tollu fii ñu jox ko dëkk bu nekk bu ñu xaymaa Sénégal 2015 ci mbirum assainissement defu ci dara. Mm-hmm. ñu ñëwaat ñu ne léegi dañuy def objectif du développement durable. Mm-hmm. fii ba 2030. Mm-hmm. Sénégal ba léegi. dara ci bi ma njëkkee bi ma mujjee xool. waaw seen stratégie euh, d' assainissement pour les les habitations urbains et périurbains ba léegi mu ngi ñu ngi koy tabax te ñu ngi ci 2000 lan. Mhm. te ñoom te ñoom war nañu fexe ba joxe résultat 2030. 2030 donc foofu la problème bi ne. waaw monsieur Faye euh, mu am benn. Euh, point boo xamante ne euh, seetlu nañ ko maanaam ci li nga xamante ne ndox yi di ball di jóge ci fosse septique yi est-ce que tamit mënuñu wax ni que tamit euh, vieillissement égout yi war mën na ko waral parce que égout yi nga xamante ne euh, defar nañ ko depuis les années dix neuf cent soixante dix ba tey jii ñoom ñooy fonctionner est-ce que tamit loolu bokkul ci luy indi mbir mi. waa loolu loolu loolu cause la. loolu vieillissement bi cause la. Mhm. mais vieillissement bi. Mhm. bañ koy defar xamoon nañ bu baax ñaata at la mun a durer. Mm-hmm. mais liy accélérer vieillissement bi mooy li ma la wax sànq c'est-à-dire yow da nga ko da ko natt mm-hmm. pour tant de personne pour tant de maisons mm-hmm. pour tant de tant de de de volume en en deux ans ñu multiplier la ko par dix donc vieillissement boobu nga calculer woon dafay dal di wàññeeku si waaw parce que exactement dafay amortir parce que ni nga koy utiliser euh, ni nga calculer woon noonu lañ koy utiliser ak ni nga koy utiliser léegi bokkul donc vieillissement bi ci la mais xam nga égu neexut a neex neexut a jekki boo ko xasee ba defar foofu lay nekk donc pour nga pour nga jeexi ko beneen affaire na mm-hmm. te dafay ça va coûter de l'argent. mais li ma la bëgg wax leneen mooy euh, de des des des habitations euh, genre genre scat urbam yi nga xam ne benn privé mbala mbala euh, partenariat privé public privé moo koy defar. Mm-hmm. li ciy xew mooy marché bi ci boppam ki koy gagné. Mm-hmm. d'habitude fii le mois dix ans la ñuy wax mooy. yow bu ñu nekkoon juróom tey bëgg a defar benn affaire man mi nga xam ne su ma njëg moo gën a tuuti man la ñuy jël toujours mais loolu erreur bu rëy la parce que man li tax ma présenté njëg bu tuuti c'est parce que matériel bi may bi may utiliser mhm. dadul nekk matériel bu baax mhm. <laughs> donc yow euh, nga jox nit ki marché mu defal la ko nit nga jaay nit yi seen kër ñu ñëw cinq ans égout yi commencé bal loolu vraiment jaaduwul. Ah, d'accord lii am na dégg nga euh, eaux usées yi inondation yi wa léegi euh, fu mu nekk nii ñoom mm, mm, mm. est-ce que am na solution pour loolu mën a deñ fu mu nekk nii kër gaa ngi noonu koñ bi mu ngi mm-hmm. kii est-ce que am na tey solution yow xalaat nga ci solution waaw moi je pense que am na solution euh, mais solution bi dafa war a nekk maanaam doxin bu ñu concerté parce que dafa am ay secteurs yu bari yu ko sekk te bu ci nekk buy xëcc ci côté am. ñoom duñ ko mun a duñ ko mun a faj. donc il faut ñoom ñu d'accord d'abord ñu toog ñu waxtaan ñu ne waaw xam nañ ne yow yaa yore lii mais man aussi lii dañ ma koy dañ ma koy faral di ko di di ñëw di ñaxtu donc naka la ñuy def ba ñun ñëpp ñu ñu ñu toog ñu xool dama la bëgg a jox benn exemple. ci biir Scat Urbam bi am na benn tali boo xam ne depuis bi tali bi amee ba léegi mënut a baax. léegi daaw maa ngi gis ñu sonn ci defar defar ba defar ko euh, li ñuy wax radier mais tey deuxième taw bi rek tali bi mel ni lu kenn xam c'est mhm, na parce que ñi doon defar tali bi mhm. ñoom mhm. calculer wuñu que am na beneen impact boo xam ne maanaam il faut nga calculer que ndox yi dellusi nañu du fi jóge xanaa beneen bekkoor ñëw mais fii ñu nekk nii en matière de changement climatique li ñu anticiper li ñu li ñu prévoir mooy que du question wu nawet buy buy buy buy yàgg mais mun na en une journée mun na taw li mu waroon a taw en un mois loolu amul benn égout bu ko antan donc mhm. sooy defaraat da ngay calculer waat loolu d' accord mhm. ñi la di waa ONAS est ce que tamit jotul ñu duut leen baaraam tuuma parce que ñoom lu ci lu ci lu ci mën nañ wax ni que situation bi ñoom euh, waroon nañ ci gën a mën a indi ay jéego gën a mën a am ay taxawaay waaye parfois sax population bu ñu leen soxlaa dañuy wootee woote ba dagg duñu leen sax jot wala parfois duñu sax ñëw ngir mën a xool situation bi lu fi am ngir mën cee indi ay euh, solution waa ONAS tamit est ce que mhm. amuñu ci benn part de responsabilité si si si si mhm. il faut pas il faut ñu ñoom am nañ ci part de responsabilité bu mag. Mhm. mais il faut comprendre aussi que c'est un office national. donc pour moom dafa élevé wu ay pro ay problème mu politique nationale lay toppatoo et am na ci benn exemple. Euh, mhm. je je je salue au passage l'ancien directeur suma xarit la. Euh, mhm. Lansana Gagny Sakho. mais xam nga dañuy wax Dakar rek. mais am na ville bu ëpp dakaar nit fi mu nekk nii. Touba moo gën a peuplé Dakar fi mu nekk. am problème mu assainissement fi mu nekk nii. et ça a amené je te ça a un problème énorme daaw entre entre les marabouts et l'office national euh, de l'assainissement du Sénégal mm -hmm. donc foofu office bi li mu mun mooy suivre une politique nationale mais bul fàtte ne les municipalités dañ ci am wàll aussi <laughs> dakaar ñu ko diviser dix-neuf communes benn ci ñoom benn ci ñoom xamul sax naka lay def ak assainissement mais lan moo waraloon ñu diviser ko dix 19 commune alors que da da da da dans le passé mm-hmm. la ville Dakar en tant que commune demoon na ba am régie régi boo xam ne dafay toppatoo sanitation di toppatoo mm-hmm. di toppatoo mbalit di toppatoo assainissement et consort mm mm-hmm. mais li ñu war a bàyyi mooy tout le temps kenn bu ñëwee bëgg indi gis-gisam gis-gisam ci pàcc pàccal pour mun a am contrôle boo mhm. amee contrôle ci nit yi te amuloo contrôle ci li ñuy jànkantoo amul benn njëriñ. effectivement euh, monsieur Antoine man nag euh, dama doon ñëw ci côté bi nga xam ne moom léegi eaux usées yooyu noonu nga xam ne dañuy gis la plupart du temps dañ koy déverser li nga xam ne moom moo di les mers te ku ci nekk xam nga ni géej gi fu mu toll nii ndaw ñi dañ ciy sangu ñeneen ak ñeneen dañ ciy napp yéen tey jii nii. ban beneen euh, solution nga mën a jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa ONAS wala ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi ciy liggéey à ce ñu bañ koo déverser ci li nga xam ne moom moo di la mer. wa ñu ngi dem ñu ngi def li ñu li ñu mun parce que y collecteur. Mm-hmm. am na beneen bu ñuy bu ñuy liggéey mais bul fàtte ne y a des et et et particulières au Sénégal. Mm-hmm. Euh, bu en tout cas bu dee dakaar li jege géej gi yëpp xam nañ ne suñu suñu suñu suñu maam euh, laayeen yi ñoo ko ñoo ko <laughs> ñoo ko gérer. Mhm. te yéen ay journalistes ngeen war ngeen xam ne y a eu problème problèmes fii. Mhm. de mhm. compréhension d'abord. parce que warul jaar euh, Cambérène warul warul tuuru foofu et consort loolu je pense que approche bi moo baaxuloon. parce que balaa ngay balaa ngay euh, fent dara da ngay waxtaan ak tous les acteurs mm-hmm. ñi nga xam ne yëpp dañ ko sekk ba ku ci nekk xam exactement lan nga ci bëgg mais boo ñëwee euh, une politique boo xam ne une politique d'imposition mënut a mënut a dox parce que kenn mënut a wax nit man maa gën a xam li baax ci yow da koy laaj d'abord ngeen toog ngeen ngeen waxtaane ko ngeen xool ni ngeen koy defee mais ñu ngi jéem y en un collecteur euh, gëj nga romb kii croisement Cambérène nga tukki ci nga tukki ci Sénégal. nga def deux jours ci mm-hmm. intérieur ngay ñib si. Mm-hmm. boo rombee foofu ni ngay def. Mm-hmm. ah kii parce que collecteur boobu baaxatul. Ah. oui parce que moom tamit dañuy gis ne ndox mi dafay ball ba jëm ci tali bi. waaw xam nga collecteur baaxatul ndox boobu fan la loo foog ne luñ koy doyee yow presque salade bi ngay lekk fii yëpp maraîcher padois yi moom la ñuy moom la ñuy <laughs> saa yi nag yaa ngi may tey. bàyyi laa leen salade <laughs> eh, waxuma eh, salade yëpp. <laughs> est-ce que moom la ñuy defaree salade Ndakaaru yëpp moom lañ koy defaree. demal Patte d'Oie. salade bu Ndakaaru lañ koy defaree. mais foofu nag ay tool. mais demal Patte d'Oie ndax ay maraîchage ñoom ba ndox la ñu utiliser. même bu ñu utiliser ndox boobu. bu ñu defee teen nappe phréatique bi ndox boobu la jël xam nga problème bi foofu foofu lañ ko war a natt. Mhm. li muy cause cause yi xam nañ ko. Mhm. conséquences yi. Mhm. xam nañ ko mais est-ce que dinañ ci waxtaan ba xool exactement. naka lañ koy solution. kii mel yi na waar. loolu moom yow lañ koy dele salade bi lijjanti leen di salade bul bàyyi ah. salade bul bàyyi salade. mais bàyyi naa rek salade ba. <laughs> non mais attends non attends non attends non attends. <laughs> loo xam nga xam nga ndox boobu lañ koy arrosé ndox boobu moom mooy jëmbat affaire bi ah kon léeg-léeg ndox boobu moo dugg ci salade bi. nañ ko dem nañ ko dem analyser. <laughs> <laughs> d' accord ñu dem analyse salade bi d' accord monsieur Faye bu ñu tëjee parenthèse salade bi. Euh, mbir mi nag euh, ñu gis ni ki déjà ndox mi di bal am na xet gu mu àndal. waaw une odeur nauséabonde sax. Euh, xale yi parfois dañuy gis ñu ciy daw di ci foo surtout si koñ yeeg yooyu ak yooyu. gisoo ni loolu an mën na am. ay danger si suñu cadre bi ak mais mais évidemment problème de santé a ngi noonu. Mhm. parce que sa doom li ñu ci mun mooy bul dem ci mbedd bi mais mënuloo quand même nekk ci ginnaawam. Euh, même ay mag ay mag sax mun nañ ci mun mhm. nañ ci jële feebar parce que vraiment nooyi loo xam ne loo xam ne euh, neexul mhm. euh, Cheikh Tidiane bu jàppee pour dem jàkk ba bu nooyee loolu mun na yàq njàppam donc loolu aussi c'est une conséquence mais yu mel nii c'est c'est vraiment c'est c'est désolant mhm. parce que lan nga ci mun leneen lu dul euh, ñaxtu ñi dañuy ñaxtu mais suba ñu ñu fàtte dundaat ci même même même condition yi mun na am des problème dermique mun na am des problèmes euh, pulmonaires et mmh. tout mais est-ce que kenn mu ngi leen di déglu est-ce que aussi waa santé ci seen bopp ñu ngi xool lii ban conséquence lay indi jéem a def ay analyse ñaata nit la ñuy la ñuy recevoir euh, commencer recevoir yoo xam ne dañoo am ay problème dermique ñi ñi ay problème pulmonaire parce que loolu mooy tax ba ñu mun ci jóg il faut nga am ay références foo sukkandikoo. pour mun a mun a euh, waxtaan ci d'une manière scientifique. Euh, d'accord il faut ñu am référence boo xamante ne foofu la ñu war a waaye tamit di woo ñii la di autorités yi. ñu gën a mm-hmm. mën a taxaw askan wi parce que ñii li ñuy dund métti na trop. ku koy dund ak ku ko dundul ñëpp. ñëpp dañ koy yëg daal mm-hmm. Mm-hmm. nekk na loo xam ne métti na torop mm-hmm. monsieur Faye ñu di la remercier ci sa présence di remercier tamit kàddu yu rafet yi nga xamante ni yëkkati nga ko fii vraiment ak humour bu ngi fi bët bàyyi ndax li ma xaw a rek mooy di nga tax Cheikh Tidiane bàyyi salaat te bëgg moom bàyyi salaat sport xoolal sama plateau xaaj yëpp dinañ bàyyi salaat man du ma lekk salaat ah, euh, monsieur Antoine man du ma lekk ci salaat <laughs> bàyyi naa ma salaatu ko lekk waa kay Cheikh Tidiane ñu bàyyi ko waaw Mélanie man euh, dama lay remercier bon euh, xam naa xëy na tu pris comme ça au, au dépourvu mm-hmm. am ah, nañ yeneen yu ñu mun a waxtaan fii euh, je pense que seen émission bi elle est importante mm-hmm. parce que elle amène une une une veille mm-hmm. pour mun a euh, vraiment yéen yi ci ci ci yenn kii yi ah, yàlla na leen ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu loolu mun a indi solution yàlla nañ leen déglu mhm. mais yenn saa yi du ñu am jot loolu parce que petit déj ñoom déjà ñu ngi ci yeneen mhm. donc euh, mais daal bu leen bu leen xaddi bu leen bu leen bu leen découragé def leen li ngeen war a def mhm. euh, xayrun bu ñu leen dégloo baax na bu ñu leen déglu bon maa ngi aussi wax pa Palmarin nañ ma. nañ la xaar waaw ma xaar. añ bi daal. ne ko naa fi <laughs> Bokk ñoo ngi koy eh, jaajëfal di leen fàttali ñoo ngi amoon eh, invité ki nga xam ne ni moom moo di Antoine Moustapha Faye analyste des politiques publiques consultant indépendant en économie di changement climatique. Mhm. de passage maa ngi nuyu ki nga xam ne moom moo di Papi Ndiaye fële ca Yëmbal te muy liggéeyee ci ONAS. ñu wax ko ñun suñu salade gi ngeen bàyyi ñu koy arrosé <laughs> eaux usées yi metti nañu <laughs> te bëgg naa ngeen apporter ci ay leeral daal bu fekkee rek euh, mën na nekk. ñu dem euh, ànd ak euh, ki nga xam ne moom moo di le grand coach de tous les temps. ci seen mm-hmm. rubrique sport. merci merci merci.